di ko ñaanal mbollem umma islamiy bi yeb di ziar mbokk yi seen mbokk khadim ja anu di waxtaan ak yeen waye di len ndokkeel waye tam di ziar al istiqama ñi nga xamne ñom lañu ñoñu talal seen micro ñuy wara wax ci li jëm ci ziar bi nga xamne mom lañ amal fi ci euh, daruminan minan euh, ci kër khalifa bi seigne muhammadul muntaka mo serigne basiru di khalifa general des mourides waaye itam di ko ànd kuréel gi nga xam ne mooy kuréelu ñaari guddi ndakaaru yi nga xam ne ñoom ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxoon na leen ko ci nañu taxawee euh, fanaan bi nga xam ne sëriñ Tuubaa fanaanoon na ko fële ca ndakaaru yaatal bi nga xam ne waxoon na ne nañ ko yaatal fépp foo xam ne euh, ab taalibe nga fa rek te liggéey sëriñ Tuubaa ñor na ko nañu yeggi foofee yeggale ko liggéey boobu taxawaay bi nga xam ne am na ko loolee nag moo tax tey ñu jóg itam comme liggéey bi ni muy doxee rek nga xam ne day ànd ak ziar boo xam ne dañ koy ziar sëriñ bi ba pare yeesluwaat ñu joxewaat ndigal ci ñu continuer jubluwaat màggal gi loole nag tey jii di dimaas tombeek ñaar fukki fan ak benn ci weeru baraxlu waaye itam di ñeenti fan ci weeru euh, avril ci 2021 ñu war ko amal fii ci Touba li nga xam ne nag moo fi war a ruuse lépp incha allahu rabbi euh, al istiqaama dinañ leen ko dégtal ngeen seetaan ko ci ay image yu mucc ayib ko defee kon xam naa loolu dañ koy ubbee rek ngir mbokk yi gën a xam ne dëgg-dëgg li loolu mooy àll bi nga xam ne moom moo moo waral liggéey bi jóg. jaar gi sëriñ bi jaaroon ndakaaru muy ñaari guddee ndakaaru yooyu. yaatal gi serigne bi joxe won ne nañu dem ci mbolé mbokki talib yi nga xamné ne serigne Touba ñor na len ñu and ko ak ñom ndax ñepp ko bok lolé nak xam nga né ndigal mom day lo xamné ne serigne bi waxon ne wala tafa'alu shay'an bi xayri isni fal isnu shartun fi qablu sha'ni kon ndigal lolé mom lañu doxé waye waaye itam bi waxon né ne zurman tuhibbu wa in shattat bika daru wa halam min dunihi sahlun aw aru kon nak siyaare ji dafa am solo lol loolee itam mooy li nga xam ne dafa mokk ci silaayal yoonu murit ci la ñu taxaw nekk ci kon xam naa mbokk yi ñu ngi leen di delloo kàddu gi rek incha allahu rabbi ba ci kanam ñu gën koo yaatara incha allahu rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ bi kuréelu Majmahun Nurayni gi màggal ñaari guddi sëriñ Tuubaa fanaanoon ci ndakaaru ñoo ñëw ngir siyaare li si la tey jiital ci siyaar gi ak cant ca ñaan ga ñu ñaanaloon ne àggale leen ko fi fu ngeen bëgg mu àgg fa yéen ak ñëpp ko bokk mënu leen koo mën a ñàkk a mën a ànd ak ñëpp sa wax joojee nag barkeel na ba mboolem biir Tuubaa gi jàll tund Bawol ba ndakaaru ba Bamako fu ne ay jëwriñ jugee fa ànd ak ñun ci liggéey bi diirum ñetti at yi nga ñu ko ñaanale tey jii nag dañoo ñëw ngir siyaare si la andi seen addiya mu toll ci juróom benn million ak téeméeri junni ak juróom fukk di yees lu si waat ndigal te ñaari guddi yooyee Serigne Touba fanaanoon Ndakaaru te di ñaanal nga yàgg fi lool yàgg mboolem ñi nga àndal ci liggéeyub Serigne Touba bi jërëjëf Mbacke. daaw bi ñu fi bàyyi ko ñoom dañ dañoo ñëw ba mbuso ne ndigal li sëriñ Muntaxa joxe ñu yaatal ko mbuso lañ ko yaatale si duñ ko fi yaatale si itam waa département Bambey gépp def nañ ci seen kem kàttan ñoom nag li ñu li ñuy sàkku di ko yalwaan di ko saraxu mooy dañoo bëgg kër ca Poroxaan goo xam ne gi daayira bi bu ñu wootee dal fa bëgg nañuy màkkaan fii ci tuubaa gii boo xam ne bii waa daayira bi ñoo koy moom lépp nag ci loxo sëñ maam Thierno sëñ Xaadim mii leenu booleel lépp mi ngi ci loxoom nun nak no ngi diglu rek mom rek la ñuy diglu kër fa poroxaan ak kër fi jité wa loolu wa day rek ñu ngi sant nak bu baaxa baaxa baax jërëjëf jërëjëf yalla yagal fi lool dina ko lool nak dan la ko yelwaan dina ko siraf jërëjëf inshallah jërëjëf serigne juga jeng ñaari guddi dakar serigne bi dafa wax ne na kaddu yu baax baax rafetlu nako da ngeen xamne seen jaay bi amna ci lool xolam na ci waye ngeen am xelam maanaam ci taxawaay bi ak yitte ji ak liggéey bi nga xam ne ngeen ko liggéeyal sëñ Tuubaa waaye fas yéene fas yéene naa feddale ay laxasaayam fas yéene ko ànd ak yéen ba faaw rek nee mi ngi leen di bàyyi xel saa su ne di leen wéttalikoo di leen ñaanal it suñu borom dimbali ñu ba dajee tawfeex sëriñ Tuubaa seen lépp gën di yomb seen lépp gën di yëwén seen lépp gën di barkeel kaddu yi sëriñ ci yëkkati tamit kaddu yi sëriñ euh, Modou Mbacke Ndiir yëkkati na ngeen xam ne dégg na ko te incha allah façon na ko te na la ko toxtal allah kon tàllal leen yéen ñëpp bismillah incha bismillah maanaam dama bëgg mbooloo mi nga xam ne dañoo nekk ci biir mbaar mi ñëpp jàkkaarloo ak sëriñ bi ñu may ñëpp xool sëriñ bi xool leen bu ko defee sëriñ bi ñaanal ñëpp ngir mbooloo mi mën a génn ndànk. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñun waa Majmahun Noreyni kuréel gi màggal ñaari guddi ndakaaru yi ñëw nañ fi tey ci kër sëñ Basiiru gi ngir siyaari si sëriñ Mouhamadinil Muntaxa radiyallahu taala anhu wa nafaana bihi ngir indi suñu addiya mu toll ci juróom benn million. ak téméré junni ak juróom fukki junni ñawit di yes lu ci wat ndigal ci ñaari guddi yi nga xamé né mom la sëriñ bi fananon ci dakaru bi mi dem ci géej gi bi ñi ñëw tuko and nañu ak jëwriñ yi nga xamé né liggéey bi ci biir gox yu ko ci biir Touba ak ci tundu bawal ak ci dakaru ba Bamako and nañu ak sëriñ Mor Diagne bayiko ko Bamako ak and ak sëriñ Modou Awa cham and ak sëriñ Modou Mbacke ndir bàyyi ko ba Mbusa Ndiir ak nag Serigne Ibrahima Ndong ak Serigne Khadim Ndiaye ànd ak it Serigne Moussa ak imam Youssoufa Sall ak Serigne Mahamadou Dieng Kalsaan ak Serigne Talla Gueye ak mboolem mbokki talib yi nga xamee ne ñoo ŋànk liggéey bi ci biir gox yu fasantikoo tey jii nag bi ñu agsee yàlla dogal na fekk nañ sëriñ bi ca fa mu nekk waxtaan nag moom ci yaari guddi yu ndakaaru yi siyaare ko yeesluwaat ndigal li mu jox ñu ko sëriñ bi ci jëmmi boppam nag xamle na ne yitte jooj yi nga xamee ne wax nañ ko ko mi ngi koy bàyyi xel bu baax te mi ñu ciy ñaanal bu baax te mi ngi ciy sant bu baax te mboolem li nga xamee ne ñaanoon ñaanaloon nañu ko ñu teg ci suñ bët bis bu ñu xëyee danañ ci gën a gisaat firnde kon daal tey jii ñi ngi xamle ne ndigal li nga xamee ne mooy màggal ñaari guddi ndakaaru yi yeesluwaat nañ ko bis ñi ki tey muy le 19 ak le 20 septembre tey jii nag lañ fas yéenee tàmbali waajtaay wi ba keroog ñuy àgg ca bis ba mbooleem jëwriñ yooyu yii nag ak mboolee yu topp ci seen gannaaw ñoom ñëpp tey jii ñëw nañ teew ci kanam sëriñ bi waxtaan ak moom yëkkati ay kàddu jébbal ko ko mu tontu ñu ci ay kaddu buñ àggee ca dal ba incha allahu rabbi danañ ko gën a leeral jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu